lii nag continuité la rek comme ni ngeen ko gisee ci euh, vacances vertes yi nga xamante ne moom la ABS doon def ñu tàmbalee ko école 11 giseen nga ni la fa xewoon jamono yi passé euh, semaine bi passé ñu ngi école 7A bi nga xamante ni moom moo nekk ci wetu inspection euh, ci côté reboisement un enfant un arbre pour vraiment reboiser les espaces scolaires tey ñu ngi ci groupe scolaire 5A et B. boo gisee lii nag tey dañu ñëw àndante ci ak waa ministère de l'urbanisme àndante ci ak ARCOS aussi vraiment mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ni dañu ñëw tey. Euh, fekk mu nekk ñu nekk dans le besoin ñu indi leen ay 50 plantes vraiment pour reboiser l' espace scolaire loolu nag dafa nekk lu am solo loo xamante ni parents yi soxla woon nañ ko école bi soxla woon na ko mais aussi population bi soxla nañ ko. projet de sensibilisation la ci côté yëpp ci volet yëpp. Euh, occupation anarchique, euh, cadre de vie, euh, propreté, insalubrité, hein, ordre ménagère le dara lépp lu jëm ci projet bobu lañu ak ministère de l'urbanisme de logement et de l'hygiène publique mais nous avons ñew fi Pikine Rue école 5 muy école bu mag de plus de 24 classes ànd ci ak ABS ABS muy association boo xam ne Ali Sow Ndiaye moo ko jiite ak ñi ci nekk am na ay cadres yu bari yu ci nekk ñu ànd ak ñoom def reboisement fii ci école bi euh, def partenariat tournée ci ci école bi euh, euh, tournage bi nag dafa ànd ak sensibilisation mooy sensibiliser xale yi njariñu garab. parce que espace yi nga xamante ñoo nekk école yëpp dañ leen war a reboiser parce que ku nekk xam na njëriñu garab te léegi garab yi dañoo raar muy ci koñ yi muy ci te ñun suñu cible bu gën a am solo xale la parce que xale yi fii ak nekkuñu en bonne santé fii ak nekkuñu en sécurité rek ñun suñu sécurité des na loolu moom moo tax tey ñu ciblé groupe scolaire 5A et B ñuy remercier aussi tous les acteurs yi nga xam ne ñëw nañ participer vraiment à la réussite de la journée. wax leen garab dafay dund ak xale day ànd ak xale xale bi di màgg garab gi di màgg xale bu nekk ñoom dañoo def lu am solo xale bu nekk dañ la parrainé benn garab ne la garab bi yaay parrain su su dundee avenir moo dund su dee sa avenir moo dee donc ñu lié la ak garab gi léeg-léeg sax doo jàng école mais da ngay sàcc daw ñëw nuyoo nuyu gardien bi dugg xool garab bi arrosé toppatoo ku nekk di toppatoo pour que garab gi mu am toppatoo mu mën a màgg pour que ñoom sax xale yi buñ génnee récréation am ker ah ak leneen comme ni ñu ko waxee tey dégg nañ fi ay aspect technique yoo xam ne amaan na nit ñu bari réere nañ ko mbir garab li tax mu am solo ci dund doomu aadama mooy yow li ngay oxygène la mais soo koy génne gaz carbonique la gaz carbonique boobu bu saxaatee ci ñun daf ñuy indil jafe-jafe mais garab yi ñoo koy absorbé kon garab dafa bokk ci dund doomu aadama. sax mën comprendre mais vraiment boo xoolee tey école bi fenêtre yi yëpp yàqu na porte yi yëpp na te école élémentaire amul benn moyen boo xam ne day mën a di chaque année muy defar ay fenêtre di defar ay kii vraiment loolu moom problème école bi la li ci des mooy école bi dafa délabré trop trop dafa vraiment classes yi sonn nañu élèves yi amatuñu benn kon xam tamit école il faut mu am euh, accueil boo xam ne élève bu jógee këram jëm école day sawar dem école mais école sénégalaise yi école sénégalaise li ñu ci seetlu mooy élèves yi bu ñu jógee seen kër duñ sawar ndax école yi vraiment amul benn accueil loolu tamit intrant de qualité la pour man bu école yi nekkoon ay écoles yoo xam c'est très accueillant comme ni ñu gis ci privé bi parce que volonté politique rek la li ñu gis ci privé buñ ko mënoon am ci public bi ñu fexé ba école yépp vraiment nek am ay cadres yo xamné vraiment élèves buñ fi ñëw dañuy épanouir dañuy sawar ñëw école déjà dina dina nek un grand bond vers l'avant au niveau pour la qualité donc loolu la lancé appel école euh, état bi mu gëna gor gor vraiment ci école yi pour vraiment xalé mom vraiment fu muy fréquente dafa war am cadre bo xamné c'est très accueillant donc buñ ñu dañu sant dañu sampal ay garab dañu ko jëmbatal gratuitement waa ministère de l'urbanisme ak waa ABS ak waa ARCOS ñi ngi leen sant bu baax a da leen sant bu baax a baax di leen gërëm te kontaan ci ñoom di leen sant vraiment ñi ngi def nañ loo xam ne vraiment dañ cee nekkoon di xalaat doon xalaat doon mérité ci nan lañu def am ay garab donc ñuy wooñu téléphone bett ñu ñu dañ leen indi ay garab vraiment kontaan nañ trop ci bis boobu vraiment